corps de contrôle lu am solo la ci réew eh, xam nga administration bu ko organisé il faut mu am ñoo xam ne seen warugar mooy saytu doxalinu état bi administration ci ay démembrement kon nécessité la lu baax la lu am solo mais problème bi nekk suñu réew mooy dañuy gis ne yenn corps de contrôle yi yenn organisme yi dañuy def seen ay rapport càmbar saytu gis ne ci fànn wi u fànn wale am na lu jaaduwul am na alal bu ñu luubal fii mbaa fële mais après dossier du yegg ci yoon loolu jafe-jafe la parce que wax naa léegi ne corps de contrôle lu am solo la ci réew te dafa war a am parce que képp ku ñu dénk war na am benn kuréel goo xam ne day saytu li ñu la dénk parce que li ñu la dénk mhm. te ku yor il faut que ñi la dénk di saytu li ñu la dénk mooy ki la nommé par décret mooy askan wi nga xam ne yéen ñi ñu par décret yéen a yor ndénkaane loolu mhm. boo demee ci corps de contrôle yi ña fa nekk en général ci fonctionnaire yi gën a xarañ yi ñoo fa nekk parfois ñu jox leen budget bu doy pour ñu def liggéey waaye bu ñu leen joxee loolu yëpp ñu jël ay rapport te rapport yi du mujj fenn kon il est légitime ñu poser wu question lan la corps de yooyu di jëriñ parce que xoolal rapport nag yi bi ñu créé OFNAC ba tey benn rapport yeggul en jugement il y problème parce que finalité bi mooy lan mooy bu ñu saytoo ba pare rapport yooyu ñu naan diw ma Mademba ou Masamba jàpp nañ ne dafa jalgati alalu réew mi dañ ko war a yóbbu ca yoon tout en respectant nag la présomption d'innocence mooy présomption d'innocence mooy tant que yoon daanu la dañuy jàpp ne dafa googu mais dossier dina war a yóbbu ci yoon yoon saytu loola nit ki ñu tuumal ñëw taxaw wax ne deful yoon xool ndax li mu wax am na u amul su nee deful ñu bàyyi ko bu nee ne def na ñu condamné ko loolu moo jaadu mais dañu gis ne fii dossier corps de contrôle yu bëri ci tiroir yi du ko passé te loolu dafay nasaxal suñu démocratie dafay nasaxal suñu état de droit dafay nasaxal même image yu Sénégal parce que ab réew lañ dañuy jëflante ak ay yeneen réew sur le plan international même investisseurs yi mhm. bu ñu déggee ne dafa am ay rapport corps de contrôle yoo xam ne jël nañ ko te demul ci yoon mu ngi ci ay tiroir mu ngi fii mu ngi fële day indi yéexe jaaxaar mais ça peut même porter atteinte à l' attractivité du Sénégal kon intéret uh-huh. nguur gi uh-huh. mooy dossier yooyu yëpp nañ ko yóbbu ci yoon. tout en respectant la présomption d'innocence parce que sénégalais yëpp a yem. ma Samba ma Demba ñëpp a yem képp ku ñu tuumal dara da ngay dem ci yoon seetal sa bopp yoon xool ndax def na ou deful no jàpp naa ne corps de contrôle yi kon amu fi njëriñ. bu fi bu ñu waree jël ay corps de contrôle mbaa créer ay organisme yu mel ni OFNAC ñu def ay rapport te du dem ci yoon mieux vaut ñu tas corps de contrôle yooyu. mais parce que amul finalité. mais mais le procureur mais procureur foogoon ne amul ok mais procureur foogoon ne yoonu réew. Mhm. ni ñu ko tëggee la. procureur dafa am lu ñuy wax opportunité mhm. yoon a may opportunité de poursuite. opportunité de poursuite mooy bu dossier ñëwee ci table procureur. Mhm. am na sañ-sañu xool ndax dama koy yóbbu ñu àtte ko uduma ko àtte. maintenant pour. moytu pour moytu. Uh-huh. lool dañu war a réformer. suñu système judiciaire ci ay pàcc yu bëri benn ci na rapport corps de contrôle yi man jàpp naa ne dañu war a réformer suñu justice ba nga xam ne dañ naan corps de contrôle rapport bu ñu def ba mu ñëw ci procureur procureur dafa war a am obligation yónnee ko pour ñu atte ko tout en respectant la présomption d'innocence su boobaa benn rapport dootul taxaw mooy rapport bu ñëw rek procureur yóbbu ko tribunal yow ma ñu tuumal nga dem tribunal layo ji foofa pour xool ndax yaa def yaa def moo tax man jàpp naa ne loolu dañ ko war a réformer pour que benn rapport ba ñu di taxawati yépp ñu yóbbu leen ñu àtte leen ok comme euh, tey ji ñu yem ci par exemple kaaw OFNAC est-ce que gisoo ni war ñu leen gën a mën a may doole comme euh, par exemple euh, la dernière sortie de de la présidente de l'OFNAC bi bu muy expliquer que nii déclaration de patrimoine ñu ci ëpp defuñu ko waaw OFNAC pour man am na doole mën nañ ko yokkaat mais lii moo di ne rapport yi ñu jël mu am suite judiciaire mu am traitement judiciaire parce que nag bi ñu ko créer ba tey deful benn rapport bu mu joxee boo xam ne àtte nañ ko kon pour yokk ko dayo pour yokk ndëgër ndëgërlaay il faudrait que ñu soppi doxalinu yoon ci fanawoo ba ne rapport nag boo xam ne ñëw na tribunal ñu yóbbu ko pour àtte ko loolu dana gën a may gëdd OFNAC ba nga xam ne OFNAC buy saytu ñi muy saytu danañ xam ne mbir mi dina am fu mu parce que tey li muy jur mooy lan sénégalais boo xam ne OFNAC mu ngi saytu da nga naan du parce que am na yenn rapport yu fi OFNAC defoon te jox ko dayoo jox ko moyen. mu jël ay rapport gëstu ñu yóbbu fa fonctionnaire yi gën a xare te finalement rapport yi yeggul ca yoon pour yoon traité ko de manière judiciaire su boobaa sénégalais yi dañuy posé wu question kon OFNAC lu muy jëriñ ba pare ñenn ñuy saytu dañuy jàpp ne nag jarul fulal. ndax rapport bu mu jël du mujju fenn kon dañu jàpp ne dañ ko war a dooleel ci fànn woowu mooy changer la réglementation ba nga xam ne rapport bu yegsi ñoo buggaate ko li ci des aussi mooy déclaration il faut nit ñi def ko loolu lu am solo la sur la transparence des affaires publiques et la gouvernance dans ce pays parce que lu tax buñ la dénkee liñ la dénk moomoo ko ndénkaane nga yor te ku yor ndénkaane ñi la dénk am nañu sañ-sañu bàyyi xel lañ la dénk maintenant lii tax ñu xam ne liñ la dénk jaarale nga ko yoon u jaarale ko yoon xam nga mooy la waxtu wa ngay jot dénkaane ya nga wax ne man waxtu woowa lii laa am ci lu ma moom man parce que xam nañ li ngay fay ko boo liggéey boo liggéeyee ba pare di dem nga ñëwaat ne lii laa am ñu méngale xool ndax bi ngay ñëw li nga amoon ak alalu askan wi ñu la dénkoon pour nga doxal ko bi ngay dem li nga am ci alal est-ce que yokku na yokk bu jéggi dayo mën na yokku gaaw mhm. yokk bi lu jaadu la bu sa salaire yokko sa sa sa sa mën na yokk sa am am mën na yokk mais ñu xool ndax yokk bi jéggi na dayo boo xam ne mën na njortu ne lañ la dénk danga ca def loo ca deful moo tax loolu dafa am solo mhm. et loolu day tax ñi ñu dénk gën a bàyyi seen xel ci alalu réew mi te bu ñu fàttee réewu Sénégal réew mu ndóol a ndóol la ñu ngi bokk ci vingt cinq pays les moins du monde boo bokkee ci réew moom ne dafa ndóol ba mu jéggi dayo li fi nekk ci alal mu néew dañ ko war a yore yore bu rafet yore bu mucc ayib pour que soxlay sénégalais yi lépp mënuñ ko faj gaa mais ñu indi ci ay jéego yu am solo. moo tax pour man loolu lu ñu war a fulal la renforcer pouvoir nag pour que ñi deful seen déclaration nag mën ci jël ay sanctions. Mhm. loolu man jàpp naa ne lu am solo la loolu maa koy sàkku parce que loolu mooy tax. mu am transparence dans la gestion des affaires publiques mu am bonne gouvernance te loolu suñu réew daf ko soxla te dafa xaw a sooxe tuuti